mbokk yi alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain xam naa ñu ngi war a jël tey aaya vingt-trois bi muy aaya ñaar fukk ak ñett ci suratul insan aaya ñaar fukk ak ñett ci suratul insan fi suñu borom di waxe ni inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila noonu page cinq cent soixante-dix-neuf bi boo xoolee ci ñaari ligne ya mujj rek inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila kon mbokk ñi ngi yee salaat sant suñu borom subhanahu wa taala ci dim ñu wërsëgal ñu dajawaat ci ab néegam di fas yéene jël ab téeréem di ñaan la nga xamee ne nii jaarale na ko ci làmmiñu yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam ci ay ngëneel yal na yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu ko fi dunia wal axira kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة
barakallahu fikum suñu boroom subhanahu wa taala mu ni inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila ñun day ñooy ñi nga xam ne ñoo wàcce ci yow alqur'an ji ak wàcce fasbir li hukmi rabbik muñal ñeel sa atte boroom wala tuti minhum asiman aw kafura bul topp ci ñoom kenn koo xam ne daf ko tub bakkaar la ak képp koo xam ne weddikatu xéewal la واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا tuddal sa turu boroom la nga xam ne mooy suba ak ca ngoon wa min al-layli fasjud lahu bu guddi jotee jógal sujootal ko wa sabbihu laylan tawila ca nga sabbal ko guddi goo xam ne gu gudd la inna haula'i yuhibbuna al-ajila ñii di waa makka ñii day dañoo bëgg lool li teew li yàkkamti muy dund adduna gi wa yazaruna waraahum yawman saqila ñi ngi bàyyi seen gannaaw nag bis boo xam ne bu diis la nahnu xalaqnaahum wa shaddadna asrahum ñun day ñoo leen bind te it ñoo dëgëral la nga xam ne nii mooy jëmm yañ leen binde wa ida shi'na heure bu ñu soobee baddal na amsaalahum tabdila daañu soppi ñu mel ne ñoom ak coppite inna haadihi tazkira lii nag ak fàttali la fa man shaa attaxaza ila rabbihi sabila ku mu soob mu jël jëm ci boroomam lii di aw yoon wa ma tashaa'uuna illa an yashaa allah doonte na du leen soob lu dul daa soob yàlla inna allaha kaana aliman aliman hakima sa borom yàlla day nekk na aji xam aji xereñi yudxilu man yashaau fi rahmati mooy tabbal ku ko neex ci yërmandeem wazalimina aadda lahum azaban alima amma toon ci di day waajal na leen mbugal moo xam ne mu tar la bokk julit ñi ngi nekkoon ci suratul insan nekk saaru xéewal di fàttali julit ñi seen cosaan na leen yàlla binde rawatina képp kenn ci ñun di bàyyi xel keroog ba muy nekk toquma ni yiw suñu borom jaar fam jaar ak yow nga xam ne war nga koo yeyool ak cant waaye gëm-gëm gu wóorit ne loolu mu dige ci àllaaxira lu am la àllaaxira la fa nekk ci di ñaari kër këru mbugal ga nga xam ne suñu borom tënk na ko ci benn aaya waaye kërug teraanga ga mu yaatal ko ak yaatal wax ñu lekk ya naan ya col ga la ñuy takkaayoo fa ñuy soonu wildaanul muxalladun yey wër lii lépp da ngay gis ni suñu borom yàlla moom la ubbee saar bu tedd bi gannaaw ba nag mu ni ñu di alxuraan ñoo ko wàcce ci yow la nga xam ne mooy ak wàcce te loolu yéeféri luñ doon wax lawla nuzila hadha alquranu jumlatan wahida moom ne ne yàlla ko yónni kay yàlla kay xam ne lépp na ko yónnee rek ab téere benn yoon baram bu ne déedéet ñoo ko wàcce ak wàcce ngiree di ci dalal sa xol misaal buñ di indil rek aaya yi méngoog moom ñëw daal di koy leeral donte ne julit day gëm ni alquran benn yoon la wàcc ci guddig laylatul qadr suñu borom denc ko ci asamaanu benneel gannaaw ba mu koy wàcce nank nank diiru ñaar fukki at ak ñett mu ne ko nag yow yonent bi muñal atte yi yàllay dogal ci at atte yi la sa borom di dogal ci yow te loolu it mbokk julit mooy warugaru julit julit day gëm la yonent bi doon wax maadin fi xukmuk adlun fi qadaa'uk yàlla say atte mooy wéy ci man te say dogal lu maandu la ci man su ko defee yow da ngay xam ne sabab lu nga xam waaye ëllëg ëllëgi yàlla la masalan suñu yonent sallallahu alayhi wasallam heure bi aaya yi di wàcc xamul woon nu yàlla di def ak moom ndax yàlla day seetaan ñu rey ko ndax mission yépp da koy yeggalee makka de fekk ne ay fukk ak ñaar fukk ko gëm moom xamu ci dara waaye daal waru garam mooy yàlla da ko woote woon dafa woote ba wa ba ba yàlla di dogal ci moom lam dogal ci moom génn ko madina moom ak i saxaabaam génn ko makka yóbbu moom ak i saxaabaam yóbbu ko madina kattanal ko fa mu wëlbati ko waat ubbi si makka yàlla dogal wooteem bi tasaaroo ba fa lillahi alhamdu yegg fi mu yegg loolu it yow julit heure boo jógee di jaamu sa borom ngalla waay dogul jëm ci moom la ngay sàkku ci wërsëg la ngay sàkku ci ay njàng la ngay sàkku ci tukki lépp lalaw lala ca war def ko gannaaw ba nag nga muñ la yàlla dogal ci yow su dogalee ci yow lu neex nga sant ko bañ koo bàkkoo su dogalee leneen nga muñ ko muñ ko rafet ca jàpp ne lii mu ma xañ dafa may dencal lu ko gën fasbir li xukmi rabbik bul topp nag def ko tu bakkaar bul ma toppal bépp yéeféer ca mbokk julit it julit day fagaru xam ni am na ay noon yoo xam ne ñii seen kattan la ñuy utiliser kenn du fi jaamoo yàlla ñii utiliser seeni menaces fii ku fi julli danaa la dàq ñii utiliser la nga xamee ne nii moom mooy ay bànneex di la ca woo na doon jigéen ñaag góor ñu doy waar ñaag ña yor alal di la ca nger ngir yàq sa diini suñu borom mu ne bul topp mukk def ko tu bakkaar ab yéeféer ak kum mën a doon borom bi mu ni saxal di tudd sa turu borom te mbokk zikrullah nañu xam ni moom mooy la gën a màgg la ñuy defal yàlla gën naa màgg nag bu nekkee ci julli aaya yi ba muy wàcc yonent bi ki sahabaam ñaari julli lañ daan julli suba ngoon ba ba suñu borom yàlla di farataal la nga xam ne mooy waxtu julli juróom doonte ne ni waxtu julli juróom sax dana ci dugg ndax boo déggee langue yépp ci bokk yam mooy suba ngoon mi ngi nangam mooy ça veut dire que da caa sax kon dee tudd sa turu borom la ca gën a màgg muy julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana wax ni man salla bardayni daxala al janna koo xam ne fexe nga ba du la faat mukk julik tàkkusaan du la faat mukk julik fajar da nga dugg aljanna gannaaw loolu it xamal ni zikrullah mooy moteur julit mooy wéttal julit rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne sabaqa almufarridun sabaqa almufarridun ñu ne ko ñan la yoom yàlla yónni mu ne azzakiruna allaha kasiran wa zakira raw na day ña nga xam ne ñoom ñooy wéetal borom bi raw na ñuy wéetal borom bi sahaaba yi ne ko ah ñooñu mooy ñan yu mu yàlla yónni mu ne mooy ñii tudd yàlla lu bari ca góor ña ak di tudd yàlla lu bari ci jigéen ña kon wazkur isma rabbika bukratan wa asila borom bi it ni bu guddi jotee ngal la waay jógal di sujuutal sa borom di ko sabbal lu gudd ca guddi ga na am mbokk julit dañu xam ne day am na ay ñoo xam ne dañuy yeewu xaaju guddi daal di tàllal seenub der commencé di def ay zikr zikr yi bu yemee ci zikr yi islam tëral loolu ñuy def dañ naan lu baax la doonte ne nag am na ñoo xam ne zikr yi ñuy zikr waxtu yooyee ye leneen muy jubluwaay ba lu dul zikr yi yonent bi alayhi salaam jàngale woon waaye xamal ne nag la gën la gënoon loolu lépp mooy lan mooy taxawal di julli mooy zikri ak sabbal ko def ko ci biir julli ndax yenent bi loolu rek la ma sa def musul def leneen lu dul loolu yenent bi musul yeewu xaaju guddi toog benn place di li zikri ba suba jot loolu musu koo def sallallahu alayhi wa sallam lam daan def mooy bu ma saan yeewu day sujud sujud mooy day julli daana julli fukki rakk ak benn sallallahu alayhi wa sallam ci koor ak lu dul koor suñu borom it mu ne nu mu gën a guddee gën a baax jàng nañ ci muzammil borom bi waxoon ne xam naa ne am na ci yéen ñuy taxaw deux ceeru guddi gi genn wàllu guddi gi ceeru guddi gi ca ca mbokk mi ngi noonu kon bàyyil ñii nga xam ne ay yéeféer lañu na doon ñu doon dund ak yonent bi ak ñiy dund ba ilaa yumi diin nga xam ne ñoom bëgguñu lu dul loo xamee ni ni mooy dunduk àdduna gu teew rek allaaxere ga nga xam ne ca la ñu jëm ca ca la ñu sax ba faw muy mbir mu diis gann ñu bàyyi ko seen gannaaw te lii it mbokk julit mooy li ëpp ci doomu aadama yi ni ñu mel te mooy boo jóge woon beneen planète ñoo planète terre di xool doomu aadama yi da ngay jàpp ne doomu aadama yi bind ñu leen lu dul ñu kër këril àdduna ñu ngi noonu lu dul ñu kër këril àdduna amma yow julit yaay ki nga xam ne sa lépp da nga cee xool alaxira waxuma say julli say koor say aj makka waaye liggéey ba ngay liggéey da nga cee xool àllaaxira commerce ba jëflante ba mu mën a doon yaa ngi cee xool lan lan la lay jural àllaaxira doo ko bàyyi mu ko gannaaw képp ku la woo ci embauchement woo ci contrat woo ci lu mu mën a doon la ngay jëkk a xalaat mooy lii lan moo ciy ngërëmal yàlla ak lu ciy merum yàlla su dee wóor na la lii àllaaxira da lay jural coono dara du jar nga def ko mi ngi noonu borom boobu nag ni ay yéen doomu aadama yi ñun ñoo leen bind ñun ñoo dëgëral seenu bind te mbokk yàlla ni mu bind yaramu doomu aadama jéggi na dayoo bala nga koo xam nga doon seetaan ñooñu nekk ci cirque yi dañuy def yoo xam ne da nga naan sax njabar la te fekk ay entraînement rek la doomu aadama yàlla may na ko mën na daw baraw gaynde gu koy dàq doomu aadama yàlla may na ko bu duggee géej di fey comme jën doomu aadama am nañu yàlla may ñu dem di tëb di def ay roulaat ci kaw mooy kattan gi yàlla may doomu aadama jéggi ne dayoo ñi nga xam ne dañuy def ay arts martiaux des fois ñu def ay kawteef yoo xamee ne nii da nga naan lii nan la ko nit mane te pourtant ñoom dañ naan sax doomu aadama 10 pour cent potentialité yi nekk ci moom exploité wu ko loolu mbokk kon borom bi dëgëral na nu mu bind doomu aadama te boo ko xoolee day ay pièces détachées la ba mu jeex doomu aadama sa bopp bi ay pièces détachées la sa yax yi dëgg gannaaw gi sa yëpp yëpp pièces détachées la lu yàlla boole ci ay sidit ak ay yàpp waaye noonu la ko yàlla kattane ni nga noonu ba da ngay gis doomu aadama def kawtéef yu rëy rëy rëy borom boobu nag ne suñu neexee ñu soppi ñu mel ne yéen ak ak soppite imma ñu jële leen fi indi ñeneen wala yéen ñooñu ñu duggoon duggaleen ci biir suuf ñu génn waat leen comme nañ ko jànge woon ca saar bi passé kalla qadirina ala an nusawiya banaana yàlla indi waat la nga mel na nga meloon borom bi nag delluwaat ci alquran mu ne xam leen ne alquran ji ak fàttali la ñeel ku mu neex mu jël yoon wi jëm ci yàlla mbokk loolu suñuy maam gëmoon nañ ko mais ñun dañ koy dund tey da ngay tukki jaar ci autoroute soo demee mu ne la virage nangam foo jëm Saint-Louis nangam boo demee tournel nangam ñun ñu tombeeg te ji ay GPS nga xam ne da ngay toog teg rek téléphone bi mooy wax ak yow boo yeggee fii tournel boo yeggee fii tournel yaa nga ca rond-point ba deuxième sortie bi ngay génne mën na laa tegtal tegtal ba na la lii si Richard Toll mi ngi nii am déet mi nga noonu loolee ko nit noonu la alxuraan mel. moo naan la sa borom nii nga ko war a gëmee sa waajur nii ngay war a jëflanteeg ñoom da ngay commerce riba dafa xaraam da ngay commerce balance yi na nga ko matale da ngay sëy moytuwul nangam nangam soxna yi seen règle nii lay tëddee noonu la détaillé lépp ba ab julit bu xëyee day mel ni que teg ci kaw autoroute bi te mooy léppam dana laaj lan la ko ci yàlla sant sun maam yi jaaraamaa ñoom téere biñ daan jëkk a jàng ci Sénégal muy Laxdari bokk na lu lu mu ca bind wala yaxillu lahu an yafaala fi'lan xatta ya'lamu xukma allahi fihi danaan daganul ci julit ngay jóg di def dara lu dul nga jëkk a xam lan la yàlla atte ci lii mi ngi noonu kum neex nga jël yoon jëm ci sa boroom boroom bi nag mu ne xam leen ne du leen neex lu dul daa neex yàlla na am mbokk julit loolu it la julit war a gëm amul lenn luy bëgg mu sotti lu dul yàllaa ca jàpp loolu tax julit lépp lu muy wax danaan insha allah insha allah yàlla moomu mooy ki xam ki xeere ñi mooy dugal ku ko neex ci yërmandeem looloo tax da ngay jóg di jaamu yàlla di woor di aj waaye nag boole toroxlu foo mën a toll yàlla jubal la yàlla nangul la mi ngi noonu ndax lépp day dellu ci moom jalla wa ala mi ngi noonu doo bokk mukk ci ñi nga xamee ne nii dañoo jàpp ne yàlla mooy dogal lépp doomu aadama du responsable ci dara loolu la ñuy tuddee aljabariya xam na ñoom dañ ñey ñey nekk ca jàkka jàng ñi nekk ca baar ba amuñu différence yàlla mooy dogal lépp mi ngi noonu mu am ñu ñu tuddee alqadriya mooy ñi nga xam ne ñoom dañ jàpp ne doomu aadama est responsable de lu de lépp lu mën a doon amul lu yàlla dogal ci moom yàlla daal jox na ko xel la muy def loolu mooy la am déedéet mbokk julit gëm dogal mooy gëm ne doomu aadama daa am responsabilité bu mu war a taxaw waaye gëm ne nag du mën a taxawee lu dul la neex yàlla su ko defee lam dogu ne da koy def su neexee yàlla mu def ko su boobaa ngëneelu yàlla la su neexee yàlla defu ko su boobaa ñaar dana ca mën a am mooy dogu woon nga jëm ci lu baax yàlla dogalu ko yàlla dana la bindal tuyaaba lu baax loolee dogu nga jëm ci lu bon yàlla yàlla dogalu ko bakkaaru lu bon loolee dana ñëw ci yow maadaama da nga caa dogu woon loolu la yonent bi alayhi salaam wax ne ñaari julit buñ dajee ak seen arme kii riir pour rey moroomu julitam kii riir pour rey moroomu julitam ki ki ki rey ak ki ñu rey yépp sawara lañ jëm ñu ne ko mais yow mi yàlla yónni ki rey dem sawara d'accord mais ki ñu rey ba pare du ko yóbbu sawara mu ne daa xéeroon ci rey mbokku julitam yàllaa ko dogalul rek waaye moom dogu woon na pour def ko kon julit loolu ngay gëm wa ma tashaa'una illa an yasha allah gannaaw ba it nga xam ne yërmande yàlla yàlla ci dugal ku ko neex amma tooñkat yi mi ngi leen di waajal mbugal mu tar su ko defee waaje jàppoon ne yàlla kay mooy dogal lépp rek dañ naan ko lu tax yàlla di wax tooñkat yi kii tooñ lu tax yàlla dugal ko sawara parce que dafa responsable yàlla jox na ko xel ne ko nii laa bëgg nga jaamoo ma mu bañ a jëfandikoo xelam jaamuwul yàlla ku mel noonu yàlla dogal ci moom mbugal mu tar bam dogal ci moom mi ngi noonu yal na yàlla dogal ñu ci yërmandeem